bi ñu amoon ca Rwanda ñuy màggal fanweeri at ñu ko tegee ci ndodd Tutsi yi lu ëpp benn million eh, ci xeet googu la ñu daal di ci diiru eh, téeméeri fan dale juróom-ñaari fan ci weeru avril ba juróom fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sulet atum 1994. ci Ndakaaru nag ci ambassade bu Rwanda seen ay doom daanaka teewoon nañu fa fàttaliku bés bu diis googee waaye itam méttilu yéen ci ay rëq-rëq waaye itam yenn ci yow xam ne daanaka gis nañ ko ñu koy amal ci jooyee coow te daanaka dëppwut ak yoon dañuy teewlu kàddu ambassadeur bi.